ñoo ngi leen di nuyu bu baax tey jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal bu baax yàlla yàggal ko fi lool tam ànd ak wér di ci teg Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Serigne Cheikh Gaawaan mi nga xam ne moo fi teewal njabootuk Serigne Cheikh Absa Mbàkke gépp di xalifa bi di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ak mboolem bunt kër yëpp ci kër suñu Cheikh Absa ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax ñoo ngi nuyu sunu kilifa yi nga xam ne ñoo fi toogal Cheikh Mouhamadul muntaxa di sëriñ Takko Mbacke moom Serigne Fallilou ak sëriñ Cheikh ummi Mbacke di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sëriñ Mame Balla mi nga xam ne moo fi toogal Cheikh Mouhamadul Bachir ak ki nga xam ne moo yor kàddu kër gi di jëwri ni Serigne Bachir muy Serigne Cheikh Joreel Mbacke ak njabootu sëriñ ab sa Mbacke gépp fépp foo xam ne rek bunt nga ci kër sëriñ Cheikh Absa Mbacke ñoo ngi lay nuyu di la siyaar ñun nag dañuy wax ci turu sëti sëriñ ab sa yi nga xam ne ñoo ngi jote woon ndigal ci Cheikh Mouhamadul basiir ñëw ci sëriñ Cheikh Joreel Mbacke ak sëriñ Maam Balla ñi nga xam ne ñooy jëwriñ ji ñu ànd koog sëriñ Mor Sarr mii nga xam ne moo daanal daaneeloon ay kàddu léegi mu jëloon liggéey bi teg ko ci seen loxo ñu ñu am lu ñu leen ci doon saytul te ñu doon ndaw yi ci xeebu lool bi nga xamee ne liggéey nañ ko ba egsi fii ñu war leen a jottali ak cant goo xam ne jóge na ci Serigne Mor Sarr ak sëriñ seex Joreel cant goo xam ne ca Cheikh Mahamadul Basir la jóge muy njabootuk Serigne Cheikh Absa gépp fépp foo xam ne ab sët nga rek ak foo ko sëtoo ci Serigne Cheikh Absa ma maanaam muy góor muy jigéen ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax ci sa taxawaay ndax dafa am loo xam ne kat mu nee su koo wax waaye dees ko yëg waaye ay nit boo ca gënee nekk tu tànk ñu am luñ jël teg ko sa loxo te loolee kenn ku ne mën a loon ko sa bopp ñu doy loola ca loolee ñun kon ñoo leen amel ak cant sëriñ bi ñi nga xam ne ñoom nga nu boole loon ma ak sëriñ Mor ak bépp jëwriñ joo xam ne rek bokkoon na ci liggéey bi ak fu waaye mën a nekk ñoo ngi lay sant bu baax a baax loolee nag ñu ciy jiital waa waa Touba gii ñu nekk sëriñ moor Sarr mii moo leen jiite. waa waa waa Dakaaru Serigne Modou Diouf Mbaye moo leen jiite waa Noota Guy Juma Serigne Cheikh Ngom moo leen jiite. sëriñ Khadim jaañ ak Serigne Makhtar jaañ ñoo nekk fañ naan guy guy Tukulóor euh, Serigne Mor Diop moo nekk Njaareem. waa Italie Serigne sàmm Ndiaye ak Serigne Babacar Mbaye ak Baye Cheikh Gawane Ndiaye. ak sëriñ Aliou Mbaye ñoo fa nekk ñii nga xam ne tamit ñooy jëwriñ ñi nga xam ne ñoo nekk bawal sëriñ a Diop ak waa waxal jàmm ak waa Mbarasaan ñoon ñëpp seen taxawaay egsi na seenub liggéey tamit egsi na jëwriñ ji nga xam ne tamit mooy jëwriñi jigéen yi soxna maam faati njakkalak moo ci mag waaye dafa jëloon lépp bàyyee ko soxna daba ak soxna nday mbàkke ñoom it ñu taxaw taxawaay bu rafet sëriñ bi nee na sant na leen bu baax a baax a baax jëwrin yi nga xam ne ñooy jëwrin yi setaat yi nga xam ne ñooy setaat sëriñ si absa yi soxna maam faati mbàkke moom sëriñ Sam Ndoulo moo leen jiite woon sëriñ bi nee na sant na ko gërëm na ko bu baax a baax bu dee góor ñi Cheikh Abdoulahat Ndoulo moo ci mag moom it moo jiite woon góor ñëpp bépp sët bu góor rek Cheikh Abdoulahat moo nekkoon ci seen kanam nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm waaye nag dañ ko boole woon ak suñu rakk sëriñ maam Thierno Mbàkke ak bàyyi sëriñ boroom baax ñoom ñoo doon toppatoo yooyu ñoom it sëriñ bi nee mi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm man mii nag maak sëriñ Modou am na loo xam ne ñoo ko doon toppatoo ci ndigalul seex sëriñ seex Jooreel Mbàkke kon daal loolu mooy li nga xam ne mooy jëwriñ yi nga xam ne nekk nañ ci liggéey bi doon taxawu liggéey bi sëriñ Ibrahima Ndiaye moom it jëwriñ la ak sëriñ eh, Daouda Diop ak sëriñ moor ngoom ñun ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal ci barkab sëriñ Touba. fépp foo xam ne waaye nekk na fa sëriñ bi nee na liggéey ba nga xam ne moom nga doon liggéey jot na ci sëriñ Mor Sarr mii nga xam ne moom la doon jaar ci loxoom tamit jot jotali na ko bépp dërëm boo xam ne rek waaye dugal na ko ci mi ngi ñaan ci barke sëriñ Touba yàlla na ko sëriñ Cheikh Absa ful ba li ngeen yéenee liggéeyal sëriñ Touba lépp ngeen mottali ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci barke sëriñ tubaa tamit nii ñu ko teewee déwén yàlla nañ ko teewee at yu baree baree bari te lépp lu ci waay def tamit sëriñ bi nangul la ko te fulal la ko ci barkeb Seexul Xadim sëriñ Seex Joreel ñoo ngi sant bu baax tamit comme ni ko seen maam Seex Anta waxe léegi sun mbokki bopp yi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom Seex Mamadou Fadal te it am na loo xam ne maanaam Seex Anta ni mu ko waxee ku xam démb xam ne sëriñ Fallu la ak sëriñ Seex Absa waaye ku xam démb xam ne sëñ Seex Gaawaan la woon ak sëñ Seex Coro loolee mat na am na lu ay histoire yu bari yoo xam ne mënees na koo wax ci ci ci ci ci fii ci bâche bi waaye am na loo xam ne dee su ko wax Serigne Cheikh Thioro dafa toppoon Cheikh Mouhamadoul Fadal jaay lépp jënde ko ak taalibe ba sëriñ Fallou jox ko loo xam ne tey jii doy na ko sëkk waaye nag mu jëloon ay kilifaam ñi mu bokkal Serigne ab sa def leen see def leen ay baay def leen ay waajur euh, def leen kilifa Serigne Cheikh Gaawaan mii man day xaj na booba ganeeguma àdduna waaye damay dégg toujours suñu Cheikh Joreel di ko wax avant muy ñëw fii ci xayra bu masaana ñëw Baye Cheikh Coro day génn kër gépp lay génn jigéen ñaak ñëpp jël bâtiment yi jox ko Baye Cheikh Gawane ne leen bu fa kenn jaarati fii ak suñu Cheikh Gawane génnul ba benn bis suñu Cheikh gaawan na ko tey day damaa bëgg a dem sañ ci kër nag wuti kër mu ne ko ah mu ne ko kon de nañ dem ci Cheikh bu laat bañ demee ci Cheikh Abdou mu ànd ak Baye Cheikh bañ demee mu ne ko kii day sëñ Cheikh na dama àndoon ak moom ndax dafa bëgg kër fii ci dëkk bi sëñ Abdou Lahad na ko fan nga bëgg a dëkk mu ne ko man day bu ma sañoon waa kër sëñ Fallou laay dëkkal mu ne ko kon naa la booleeg Cheikh Mamadou Moustapha Fallilu bi mu ñëwee Cheikh Mamadou Moustapha Fallilu moo ko joxoon fii fii un hectare la woon nii mu toll nii moo ko joxoon ci ndigalu Cheikh Abdou Lahad mu ñëw sanc ko loole yàgg na lii may wax sëñ Cheikh Jooreel ak ñoom sëñ Mame Balla ñëpp xam nañ kon ànd boobee lu yàgg la ci diggante sëriñ Fallilu ak sëriñ sëriñ ab Absa waaye diggante sëriñ Fallilu ak sëriñ Cheikh Coro ak diggante sëriñ Cheikh Coro ak sëriñ Cheikh Gaawaan kon am na loo xam ne bu sëriñ Tàkko toogee nii sëriñ Cheikh mi toog nii njabootuk sëriñ Fallu gi toog nii ñi xam-xam nañ ñi nga xam ne xamuñu tamit loolu mat na koo leeral sëriñ Tàkko mii tamit ak sëriñ Cheikh Ummi maanaam ba nga xamee ne sëriñ Fallu mi ngi mi ngi tabax jumaa ji ba noppi 1963 la jël sox soxna màggat ak soxna jàmboor tabaxal leen foofee ci biir kër sëñ Cheikh Thioro boole leen ak Baye Cheikh Thioro soxna Ami Cheikh mi nga xam ne mooy rakki sëñ Cheikh mu mii biir kër Baye Cheikh Thioro la ganee àdduna 1963 kon loolee du asaar seen jotaay bii du asaar sëriñ tàkko mii tamit ko saalika naka noonu kenn ku ne ca ñoom ba nga xamee ne xamee nga sa ndeyjoor beeg sa loxo bi rek la la sëñ sëñ Fallu booleeg sëñ Cheikh Thioro kon nag buñ ñëwee ci jotaay bii ñi xamul loolu war nañoo xam ne fii moom seen kër a waaye nag jëmmi sëriñ Fallu lañ fi tooge jëmmi sëriñ Tuubaa lañ fi tooge te it nag ah, lu mat lu mat a def ci kër gi def nañ ko lu mat a wax ci kër gi wax nañ ko ndax kat sëti sëti sëriñ Fallu ak sëti sëriñ Cheikh Absa ci kër sëriñ Fallu rek di ko daj loolee nag liggéey bu sëriñ Cheikh Absa liggéeyal sëriñ Tuubaa la ba mu nangu ko damay faral di wax ne mbir moom taal boo fi taa boo fi gis muy tàkk bu ca loxol sëriñ Fallu génnee mu géem loolu yàllaa ko dogal ko nangoo ku ko nangut sëriñ Cheikh Absa nag sëriñ Fallilu teg na ko loxo Cheikh Mouhamadou Fadal teg na ko loxo Cheikh Mouhamadou Moustapha Fallilu teg na ko loxo kon loolee moo waral seen jotaay bii Serigne Cheikh Oumy Serigne Takko njabootuk Serigne Cheikh Absa gépp ñu ngi leen di sant di leen ñaanal lii nga xam ne yéene ngeen ko ci yoonu Serigne Touba bi yàlla na leen ko yàlla kàttanal ba ngeen mottali ko boo demee Serigne Abdul Karim mm, kasaalika na ko noonu Serigne Xabaanum Serigne Fallu saalika na ko noonu kon day am loo xam ne ñi xam nañ ko xam ñi xamu tamit ñu xamee ko noonu xam ne kat boole boo xam ne suñ borom ma leen ko boole woon ñu koy sàmm te ñoom ñii kat fañ ko jox sel rafet na lool kon sëriñ bi ñoo ngi lay sant ci turu njaboot gépp ak turu taalibe yëpp di sant tamit sëñ fépp foo xam ne mbokk jóge na fa mënuñoo lim waaye mbokk yëpp gis nañ leen xarit yëpp gis nañ leen taalibe yëpp gis nañ leen waa Bawol ak waa Njàmbur ak waa waa Dakar ak waa waa waa waa Italie ak ñëpp ñëpp gis nañ leen seen i taxawaay ñëpp rafet na ñi sant tamit ñi nga xam ne ñoo doon taxaw waañ yi ak jigéen ñi nga xam ne ñoom leen ko àndaloon ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ah, di beral ak cant nag maam Cheikh Anta ni nga ko waxee léegi ñii day dañuy ay waajur ci ñun sëriñ Cheikh Oumy mi ngi koy nett léegi ax ma bi nga xamee ne sëriñ Axma sëñ Cheikh Gaawaan wax na ko na ko demal jëli gone yóbbu leen ci sëñ sëñ Saaliw sëñ Cheikh Oumy ngi nii doon ko léegi ba xamee ne sëñ Ahmadu mii ñëw na di ma jël si booba man xam naa ne lu ndaw laa woon bi bi nga xamee ne jël si na ma ma yor saag bi mu ànd ak sëñ Cheikh Oumy di dem sëñ Cheikh Oumy du ma fàtte loola bi mi tolloog poto lampe bi woon ci ko sëñ Modou Maodo Jaxate da doon jooy bi muy wàññeeku nga xam ne booba sëñ am sëñ Axma mii ma jël si maak Xaasim ak sëñ Ibra Ndar mi ngi ci jotaay bi eh, yóbbu ñu kër sëñ Saaliwu mille yaakaar naa bu ma jumul 1985 wala 1986 la kon sëriñ Seexu mi am na loo xam ne tey jii bu ko bu ko nit ñi wax lu lu lu lu mat a lu mat a leeral la ndax yàlla dañoo boole mbokk waaye nag sëriñ Touba rek la ñuy xool ci yéen ñun fas yéene ñoo doon dara lu dul ay taalibe ñeewante gi ñu ñeewante ak bëgg gi ñu bëgg xam nañ ko bu baax a baax a baax lii ngay def xam naa lu wér la ci yow ci sa xol bu bu dara doon ñëw jëm sama kaw day dal sa kaw ba pare door a door a egsi ci yow Mbàkke loolee nag ñu ngi ñaan ci bat barkab Sëriñ Tuubaa yal na la yàlla taxawu yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla kàttanal ba li nga yéegi na liggéeyal Sëriñ Fallu nga liggéey ko alaaj tàkk Tàkko mii ñu bari jàpp nañ ne sama waajur a ko jur soxna màggat comme ni ma demee nii rek man ñu néew bi ñu xamee ne suñ Cheikh Gaawaan ma jur yàggul ñëpp dañ naan laminum suñ Cheikh Coro suñ tàkku mii tamit noonu la mel ñëpp dañ naan suñ tàkkoom soxna Maguette Dieng ca Touba gu njëkk gaak ñeneen ñi xam dañoo jàppoon ne moo mook soxna maa musamee ñoo bokk yaay loolee nag lu loo xam ne lu lu wér la loo xam ne am na loo xam ne du asaar bu luy amee kon alaaj sëriñ tàkku jërëjëf sëriñ Cheikh mbokki taalibe yaa ngi nii suñ Cheikh Joreel nañ am xéewal nañ wér am kàttan guñ liggéey mën a liggéeyal sëriñ Touba loolu rek mooy li ab taalibe di jariñ taalibe yi nag jàmbaar lañ li tax ñuy jàmbaar koo xam ne boo wootee mu jox la boo wootee liggéey mu liggéeyal la kookee mat naa sant lépp loo fi gis rek taalibe yee ko fi def la suñu laaj baara doon wax kon seen ñaq ñëw na seen doole ñëw na seen i jëf ñëw na kon nag sant nañ taalibe yu baax a baax di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa yal na leen yàlla kàttanal ba li ngeen yéenee liggéeyal Sëriñ ab sa lépp ngeen mottali ko sëti tamit diirub ñuy tàmbali liggéey bii kenn noppaluwut kenn ku ne yaa ngi wax say xalaat àndandoo mënuma leen lim ñoom ñëpp waaye sëñ Cerno dina leen dina leen tudd ñoom ñëpp sant leen gërëm leen am na koo xam ne nag suñ dooma yàlla dogal mu am ndomb ak tànk ci dëkk bi ci réew mi bokk muy Serigne Cheikh Thioro sa mais ab député la damay faral di wax ne nit nag amul lu dul mbokkam sa mbokk lu mu ne danga cay nekk ak moom bo maanaam boo ko mënee ñaanal baax na boo ko mënee jàppale nga jàppale ko boo ko boo ko mënee dimbale tamit nga dimbale ko te yàlla tax ndax kat kenn ku ne la muy la muy la xawma la fa fa mu dagg rek foofa lay foofa lay foofa lay foofa lay wadde te Serigne Cheikh ci ñun ñii la la dagge kon amuñu lu moom amuñu lu dul amul ñun kon nañ ko nañ ko nañ ko jàppale bu baax a baax yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla taxaw ba lim yéenee liggéeyal maamam moom it mu eggale ko ñi ngi sant tamit Cheikh Mouhamadou faadal moom Serigne Abdoul Fatah Serigne Cheikh Anta Baye Galas waxoon naa leen ko fii daaw waa Cheikh Abdou Fatah la si naag amonoo la ñuy wooyee benn daayiraam wala benn taalibeem bu des ci dëkk bii amul ñoom ñëpp ca fajar lañ ñëw depuis démb ba léegi ñu ngi fi ñi ma mujj nuyu léegi mbooloo mi egsi léegi xaw ma seetlu ngeen comme léet xaw ma ci kenn dañ maa jox loxo ne ma ñun taalibe baay Galas lañ Cees lañ jóge ngir bis bi rek dañoo gis sëñ Fallu di ko yëgle ñu yëg ko rek ñëw te yaakaar naa lu gàtt mat nañ juróom benn nit te Cees lañ jóge ña nga nee nuyu ma léegi moom Eh, bu la yàlla booleeg moom li Cheikh wax léegi ànd moom ànd la rek te yàllaa ñu boole muy sama xarit waxoon naa leen ko fii daaw sëriñ Fallou maa ngi lay sant bu baax ci turu njabootuk sëriñ Cheikh sa gépp ndax kat ni ni ngay li ngay xool ci man rek loolu la ñuy xool ci yow njaboot gi ñëpp xañ na am na ñoo xam ne xamoo leen wala seen seen jaxasoowu leen waaye cofeel googu lañ am ci yow ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal ci barkeb sëriñ Touba yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla taxawu ñoo ngi sant tamit soxna maam Ami Ladior moom Cheikh Abdoul Karim sëñ Abdou Karim ni ko Cheikh an euh, Cheikh Anta Samb waxee rek fan yi yëpp juróomi fan juróom-benn fan yi mi ngi woon Touba Bogo ci ab ab ruuj waaye daa mujj démb na Baye Fall yi na am ñoo xam ne nañ bàyyi li ñuy def te dem ca màggalu Serigne Cheikh Absa Ga yónnee baas yeeg ak Baye Fall yi ñu ñëw nga xam ne foofu lañ jógee directement ñëw fii soxna maa am ami tamit loola moo ko gàllankoor ba munta teew waaye njabootam gépp teew nañ lim daa jëf ci bis bi tamit jëf na ko fan yi sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko njabootuk sëriñ Cheikh Coro ba ci njabootu Baye Abdou ba ci caatum sëriñ Cheikh Absa fépp buntu sëriñ Cheikh Absa boo xam ne daal sëriñ Cheikh Absa mooy sa waajur ci jigéen góor ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm te xam ne seen jëf ñoom ñëpp egsi na taalibe yi tamit ka saalika naka noonu kon wax ji ñun dañ doon wax ci turu sët yi rek waaye sëriñ Cheikh Coro moom moo yor kàddu sëriñ Bass moo ci wax mook suñ maam Balla kon nag sama mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci liggéey bi lépp lu ci juunu ngeen jéggal ma ko lépp loo xam ne jub na tamit ngeen xam ne baaxu sëriñ Tuubaa la sama xarit yi nga xam ne ak sama soppe yi nga xam ne tamit ñëw nañ ngir ngir ngir suñ jëmm rek maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax mënumaa tudd tur waaye ñëpp xam nañu xam naa Cheikh Souhaïbou ak Cheikh saaliwu rakki Serigne Fallou lañ tey jii Serigne bi da ko yónni woon fu sori waaye dafa dafa mujj ne lu métti métti damay wàññeeku rek ñu ngi nii toog ak sëriñ Serigne Fallou Bousso mi nga xam ne mooy di ni Serigne baay Galas kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi ñaanal tamit Cheikh Mouhamadou Fadal moom Baye Cheikh Thioro yàlla yàggal ko fi mbokk gune ne xarit da cee am moom sama xarita ñi ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax ndax it macha allah nit ku baax la nit ku fonk kilifa la maa ngi sant tamit Cheikh Mouhadou Mamoun ci turu njabootu suñ Cheikh Gaawaan gépp moom suñ Cheikh Gaawaan boo tuddee tur waaye nag day am ñoo xam ne boo leen tuddee yóbbaale nga ñëpp ndax dañuy doon borom yi pas-pas ba yoo xam ne ñooy yóbbaale nit ñi te sëñ Mamoun boo ko fekkee fii barki démb damaa dugg fekk ko muy bale fii ci baaj bi ñi ma àndaloon man nañ seer man ko looy def nii mu ne li ñëpp bëgg laay bëgg rek damay liggéey rek kon loolee am na loo xam ne bu ko nit bëggee da nga koy sàkku kon li sëñ sëñ Gana Messere doon wax léegi waxoon naa ko daaw ñun ñëpp nañ jaay sunug taalibe jënd ko nañ jaay sunu njureel jënd kook taalibe ndax kat ak taalibe rek moo fi maye maa ngi koy digal sama bopp di ko digal sama doom yi nga xam ne samay doomi bopp lañ te fonk suñuy kilifa kilifa ka kenn amul lu dul moom boo bëggee egg ca egguwaay ba da ngay téye sa waajur fonk ko teg ko fa ko war a teg sa waajur nag loo ci moom di ko am la ngay wut ci moom nag mooy ngërëm waxoon naa ko fii daaw daa am ku ñëw fii ne Serigne Touba damay laaj ba xam ñaanug walliw ak ñaanug waajur lu gën Serigne Touba na leen ku daje wut ak euh, ku amul ngërëmul waajur doo daje ak wàlliw moom lay ñaanal kon nañ fonk suñu waajur yi te teg leen fañ war a teg fañ leen war a teg guddi ak bëccëg tamit sax seen i ndigal te mooy moytu seen tere ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Modou Xabaan mi nga xam ne tamit mooy suñu doom yoroon yoroon euh, modérateur bi xaw ma nu ko waxee ci tubaab. ñoo ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant sëriñ Mbacke Abdourahmane ak sëriñ Gànna Mesere ci taxawaay yi sëriñ Thierno Mbacke nag moom it ñoo ngi koy beralug cant gu wér a wér a wér maam Thierno ku baax la ku jàmbaare la ci liggéey bi ku ci mën a sonn la ku bëgg maamam la sëñ Fallou nag da doon wax ne jaajëf deesu ko wax ku jëfut dara njëf yi moom ku seetaan ma ñeetaan rek yéen ñëpp a jëf nag waaye da cee am ñoo xam ne moom dañoo gën a fes dañoo gën a fes ci liggéey bi macha allah waaye yéen ñëpp nag ay jàmbaar ngeen nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax a baax ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb sëñ Tuubaa li ngeen yéenee liggéeyal seen maam yàlla ngeen ko mottali sëñ moo Modou Xabaan lii mu doon wax léegi na am na loo xam ne mën naa raw waaye nag rawagut gone yi nañ nañ jàngi ab yar te dem jàngi xam-xam man xañ na sax soriwuma waaye nag jamono ji day day day day day day toll foo xam ne day am loo xam ne xam-xam lay laaj kon yéen ñi nga xam ne yéenay ndaw ñi sëñ Tuubaa moom boo ci xasee bokk dara jot yàkkamti xaalis beeg vaccinaire yeeg oto yu rafet yeeg yooyu yëpp dafa xew waaye am na leneen lu ko gën a lu lu ko ëpp importance mooy ak taalibe ak yar ay ak teggin ak am am xam-xam kon ñu toll ci jàng nañ dem jàngi ñu toll ci jàng nañu dem jàngi bu liggéey jotee ñu dem liggéey te fonk seeni waajur li ci des lépp Sëriñ Tuubaa noppi na ci wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu